la loolu moom euh, mooy rek euh, day wane encore une fois que ni nit du xam boppam mukk te nit day bëgg rek chaque à fois di vanté wu euh, waaye nag li mu ëppalee nit ñi itam mu koy wane ñu jàll ci joojo joojo nag moom ba tey mënul rek daal di digérer li nga xam ni def na ko te mooy rek ëmb doom joo xam ni jëkkëram di Sadikh juru ko ba tax na nag mu wax ak Sadikh pour rek mu daal di avorter ndax jàpp na ni ëmb boobu rek du ko mën a continuer du ko mën a supporter waaye Sadikh nag mi nga xam ni xamul dëgg-dëgg lan moo jàpp ba joojo jàpp na rek ay caprice wala nag ragal réussir moom moo tax euh, ba na rek pour daal di koy ëppale jàppale ko rek soutenir ko ba mu daal di am euh, doom si jàmm waaye nag ba nga xam ni euh, li nga xam ni jàpp na ko ci xelam mu daal di ko ci génnee waaye gis nañ ni itam bi muy wax ci waxu Awa Cheikh moom Sadiq xamul li tax Awa Cheikh dem waaye nag bëggul itam wax ci ak joojo jàpp na ni ku ci nekk rek dafa am foo xam ne fa nga war a yem ñu jàll ci faa faa nag moom mi ngi inquiété wu pour Awa Cheikh ndax Awa Cheikh dafa dem sans signe de vie loolu day wane encore une fois que ni faa nit ku baax la te dafa sensible ndax à chaque fois ku am problème rek da ngay gis faa mooy taxaw nekk ci sa pour jàppale na nag pour une fois moom faa mu daal di euh, topp euh, lijjanti boppam topp lijjanti ay problème am te fàtte nit ñi tuuti ndax nit ñi tamit du déggoo leen rek nekkuñu si jàmm parfois itam nekk ci seen ay euh, yëfu bopp mooy tax ba kenn du leen mën a dégg ñu jàll ci mère Fama mère Fama nag moom yàkkamtigul lu dul ñibbi village ànd ak baam bi jàpp na bi mu ngi ci ëttu bi rek jàmm waaye maire umu moom gis contrairement à maire femme gisul jeu xam ni ki xam ni moo di euh, bambi mi ngi koy def saa su ne kon moom maire umu euh, dafa mel ni rek ku euh, loo xam ni bambi wax na ko rek wala def na ko pour impressionner ko day jàll ba tax na tey muy waxtaan ak moom ndax moom mi nga xam ni moo di maire umu mën naa ni da koo considéré comme propre doomam ñu jàll ci buso buso nag moom dafa triste ndax dana gën a dëkk ci kër gu mag gisoo sa yaay sa yaay dem waaye rawatina nga koy woo koo jot mënoo am ci moom benn information nekk na loo xam ne lu métti la ba ngeem waaye heureusement ba faa mi ngi fi ndax yombul benn yoon sa wuju peccor go yaay euh, nekk nit ku baax balay bëgg balay toppatoo comme ni ko faa di toppatoowee ndax ñëw na rek ngi daal di koy réconforter waaye fexe rek ba mu retrouver le sourire ñu jàll ci Ibnu Thiam moom nag mujjee na décidé ne day marié wu ba tax na nag mu dem di uti appartement ndax jàpp na ni euh, li ay frère di dund du ko dund moom day dem daal di génn dëkk ak këram dëkk ci appartement ak jabaram pour mën a am jàmm ñu jàll ci tàntukóor yi tàntukóor yi nag moom boo gisee manière bi muy comporté ak Cheikh dangay day mel ni juru ko am na lees waxul ci seen diggante ñoom ñaar ba tax na nag gis nañ ni Awa Cheikh ñëwee këram euh, instant yi li bëgg mooy forcé ko mu daal di dellu daal di des ci sëyam alors que euh, tante Cody bu nekkoon yaay joo xam ne mat na yaay euh, du gis doomam li muy dund kër baabel boobu ba noppi nag mu dëgg ci tànkam waaye nag di gën a ñaax doomam ngir mu dem ci kër goo xam ni dafay sonn waaye nag mosu faa heureuse ñu jàll ci xalil xalil nag moom réalisé na rêve faate mooy rek daal di koy ubbil crèche bi nga xam ni depuis boobu ba tey mooy mbébétam muy loo wareefu jëkkër ndax yaakaar naa borom kër bu nekkee ak soxnaam li ko war mooy éppale ko waaye lépp loo xam ne sumb na ko mu daal di ko siy jàppale ba mu daal di ci eh, génn ko wax kon mi nga xam ni moo di faa kontaan na waaye nag dañ koy comprendre ndax ku am jëkkër joo xam ne dalay eh, jàppale di xool li ngay bëgg mu ciy dox loolu moom foo jaar rek daal di eh, kontaan ba tax na famille bi yëpp ci kontaan Nabou Guèye sax moom kontaan na ci donte nag mi ngi koy takkine comme noonu lañ ko xamee waaye terewul ku ko gis xam ne dafa kontaan ci li nga xam ni xalil defal na ko faa ñu jàll ci awa cheikh nag moom ànd na ak tante Kory ñibbisi ci kër gi waaye bi mu ñëwee li mu def bett na tante Kory ba tax na nag muy xuntu ak di xataraayu ndax dafa ñaan baat ki nga xam ni moo di Sadikh Sadikh itam daal di ko koy may waaye comportement euh, ki nga xam ni moo di euh, tante Kory euh, père sax d'accordu ci ndax jàpp na ni rek nit boo ko juree yaakaar naa waroo am comportement bi ak moom texte bu nekkee ci ay difficulté ci ay problème da ko war a taxawu daal di ko siy jéem a génnee waaye waroo rek nekk di ko xas ndax koo jur dëgg waroo amalee noonu leen ñu jàll ci baam bi baam bi nag moom nee na nanguwul rek sëy ak ibnu alors que moom moo nangu woon euh, tey ji nag bi ibnu nangoo euh, nekkut ko da koy marié moom baam bi bi ci li mu nekkoon rek euh, dara jubu ci waaye nag moom mi nga xam ni moo di baam bi loolu nag tax na mu bëgg daal di gàddaay génn kër gi ndax sëy ak ibnu génn ëtt baabel moo ko gënal waaye nag meer xaama mel na ni li ñu naan xam nit ki xam jikkoo ma ko gën moon na ni baam bi dina jéema rek daal di fàq ba tax mu jël caabi kër gi daal di koy denc ñu ci moom euh, gis nañ ni euh, faa la tuddee doomam bi parce que da koo ñeewental ndax dafa dégg fa ak xalil di wax waxu faa mënta am doom kon moom Omar même bu fekkee ni ko xale la peut-être am na xel bu baax a baax ndax li mu def am xel rek moo koy def ndax nit koo xam ne mënta am doom peut-être boo ko tuddeewee doom di nga xaw a rek euh, soulager ko tuuti ndax doom jooju nga tuddee ko dina ko jàppee comme doomam waaye loolu nag neexul benn yoon Nabou Guèye ba tax na lu nekk mi ngi koy wax ndax Nabou Guèye moom dafa jàppoon ni rek doom jooju moom lañ koy tuddee ñu jeexal ak séquence bu mujj bi ñu gis ni mariage Omar ak Fifi moom takk nañ ko ba nag di leen félicité waaye baam bi moom euh, comme fàq bi mënul woon jàll indi na rek beneen problème boo xam ni day tax sëy bi du am te mooy rek daa indi benn doom bu la teg ci ne doomu xalil la loolu nag indi na gi ndax faa mi ngi xam xalil moom it euh, àndatut ak sagoom waaye nag euh, ku nekk rek yaa ngi sëngeem mu mel ni kon moom baam bi defati na mëninam te mooy rek indi kon boo kenn tax na di fii ma jox leen dig daje ci beneen épisode waaye laata boobu woy leen di abonné ci seen série TV bu leen fàtte ba psychologue cloche de notification bi pour ngeen di jot suñu vidéo yi à temps réel jërë ngeen jëf